nga ñu bàyyi la nga. rapide laa ko tuddee bàyyi Cheikh. waaw ki may njëkk fekk ci ligne bi. Mhm. naa ko jox suukaru koor bu toll ci deux cent mille. en attendant ñuy àggali waxtaan bi ak président Déthié Fall. mi ngi noonu Baye Cheikh comme ni nga ko waxee rek ñu def ko cuisine rapide rek expliquer euh, expliquer leen plat du jour bi nga xamante ne ni moom lañ leen andil euh, tey sànq nag woloon nañ leen ingrédients yi. nga xam ni moom la ñu war a defaree suñu euh, poulet pané brochette de poulet pané tey nag moom lañ leen proposé pour xëdd euh, sànq ñëw nañu ci euh, détails yi ak suñu partenaires yi nga xamante ne ni ñoo ñu accompagner fii suñu biir waañ euh, sànq nag cité nañu yëpp euh, bàyyi fi mu ne nii nag mën nañu ñëw rek dem directement ci li nga xamante ne ni mooy préparation plat bi gannaaw nag bi ñu àndee suñu partenaire bi nga xam ni mooy waa Sédima ñoom nag ñu àndil ñu rek poulet texal bi nga xamante ne ni bàyyi boo koy toggee sa xel dafay dal ndax ginaar gi déjà ñoom dañ la ko nettoyel ba pare yombalal li nga xam ne mooy préparation bi déjà Euh, brochette yi nag bàyyi moom laa defar nii à l'avance gis nga poulet bi nag euh, dañu ko désossé boo déggee désossé nag mooy dañu dindi yax bi euh, blanc bi rek la ñu soxla woon gannaaw bi ñu ko defee noonu ba pare nag dañu ko dagg en julienne mooy yu gudd rek la ñu ko dagg bàyyi Cheikh jël li nga xam ne mooy pic brochette bi daal di ko ciy piqué ndax forme bi la ñuy soxla Baye Cheikh pour mën ko euh, pane defar li nga xamante ne ni mooy brochette yi ñu leen proposé tey gannaaw bi ñu ko piqué ci brochette yi ba pare ndax ginaar ku ne xam na ni boo koy togg dafay laaj euh, nga def ci laay Ah, euh, laaj bu doy ak citron def nañ ci citron ak ail en poudre bi nga xamante ne ni Baye Cheikh waa Sosa Resto ñoo ñu ko andil moom lañ ci saupoudré sànq ci kaw ak citron bi bàyyi ko noonu nag mu euh, macéré mooy mu mariné wu ak moom le temps que nag ñu doon defar suñu légume sauté ci kanam nag nañ leen expliquer euh, légume sauté bi naka la ñu ko defaree fi mu ne nii mën nañu ñëw rek attaquer préparation bi directement pour nag nga defar brochette poulet pané yi ma leen proposé tey dinaa soxla nag li nga xam ne mooy farine bi nga xam ni waa NMA ñoo ñu ko andil Baye Cheikh mu nekk euh, farine farima bi nga xamante ne ni sànq keroog maa ngi ko doon wax euh, farine pâtissière la nekk nag type 45 moom it boo koy toggee ci sa biir waañ sa xel dafay dal ndax li nga ko jox rek Baye Cheikh dala koy delloo ba mu mat sëkk dinaa jël nag 3 euh, cuillères à soupe de farine mooy kudd bu mag bi rek laa jël daal di mesurer daal def 2 lii laay soxla am naa fii nag tuuti tandoori moom tamit épice la boo xam ni waa Sosa Resto ñoo ñu ko andil moom laay jël rek daal di def fii daal di ciy saupoudrer nànk defaat tuuti ay en poudre comme nag euh, damay ñëw marine waat poulet bi lii rek dina baax ma mélanger ko su ma paree nag damay jël tuuti rek. ci eau Kayar bi nga xamante ne ni moom daf ñuy accompagner fii suñu biir waañ mu nekk ndox mu nekk ndox mu neex Baye Cheikh. li ngay mariner kenn kenn gisu ko ndax sa bagage yee ko muur. bagage yee ko muur xaaral ma teg ko nii ñu mën ko gis bu baax. bàyyi yàlla da ngaa bagage. <laughs> mu ngi noonu. sa ko muur. bagage ko muur Baye Cheikh xaaral ma gën a xëccaat chapelure bi rek teg ko nii de côté. comme ça ngeen mën ko gis bu baax. déjà nii ñu dolliwaat tuuti ndox ak cuillère bi rek ba tey. ñu daal di mélanger farine bi parce que ci la ñuy jàllale brochette yi pour mën ko def ci biir euh, li nga xam ne mooy chapelure bi mën ko nag euh, saaf bay cheikh déjà nii damay soxla pâte bu onctueux du euh, du du tooy trop du du kii tamit du léger bay cheikh dafay fluide rek comme nii rek ni laay soxla texture bi mu mel voilà gis nga nag boo amee texture bu mel ni da ngay mélanger nag bu baax ba nga xamante ne nii du am benn grumeau moom nag mën nañ ko tegandi de côté Baye Cheikh teg ko ni daal di jegele nag li nga xam ne mooy euh, brochette yi gis nga ni Baye Cheikh damay rek euh, ñëw jël fii li nga xam ni mooy sama épice sosa resto ko ci moom nag euh, Baye Cheikh dafay jox li nga xamante ne ni mooy poulet bi gu tuuti rek la ñuy def suñu defee nii tuuti bay cheikh dinaa jëlaat aussi ci tandoori bi daal di ciy def ma fàttali que ni defoon naa ci aay nag ba pare ak sel bàyyi ko noonu mu macéré wu ak citron gis nga nii rek la ñuy def suñu defee nag nii ba pare bay cheikh dinaa soxla nag tuuti persil coriandre pour moom tamit gën a relever goo bi moom rek la ñuy jël daal di koy émincé moom tamit grossièrement daal di sotti moom it ci kaw poulet bi gis nga nii rekk bàyyi ko ci nag mu macéré gis nga nii rek ñu tourné ko ci bu fekkee nag yaa ngi sa kër bëgg ko defar euh, soit pour euh, reer mën nga teel a mariner poulet bi def ko au frais mën nga ko mariner ay vers quinze heures daal di koy dugal nag ci frigo bi bàyyi ko noonu bu ko defee marinade bi dafay gën a dugg poulet bi mu am goût bu baax a baax bàyyi Cheikh fi mu ne nii li may ñëw def rek mooy ñëw rek taal sama. cuisinière Sifa bi nga xam ni waa euh, Dekakila ñoom ma ko andil Baye Cheikh mu nekk ay électroménager yu mucc ayib yoo xamante ne ni boo koy toggee sa xel dafay dal maa ngi leen doon expliquer que ni que euh, moom ni mu nekkee gaz noonu la mën a nekk électrique Baye Cheikh boo bëggee mën nga ko branché gis nga ni nag diwlin bi ma yor mooy huile tournesol kadi bi nga xamante ne ni waa Sénico ñoo ñu ko andil Baye mu nekk benn huile boo xamante ne nii c'est 100 pour cent euh, naturel Baye Cheikh moom laay ñëw rek daal di def tuuti fii. ci suñu marmit lu yem rek laay def bàyyi cinq minutes mu xaw a tàng tuuti ma daal di ñëw commencé defar li nga xam ne mooy samay brochette pané gis nga nii rek am naa fii li nga xam ni mooy farine bi ma defar sànq farine la tandoori ay en poudre ak li nga xamante ne ni eau caillard bi mélangé bàyyi noonu bàyyi Cheikh fii nag am naa chapelure chapelure moom euh, c'est simple mën nga am sa mburu bu wow nga daal di koy defar ba mu baax dëbb ko lay ko bu la neexee aussi nga dem ci grande surface yi jënd ko fa mu gën la noppal Baye Cheikh gis nga naka pour defar brochette yi c'est très simple gis nga nii gannaaw bi nga ko marinee ba pare da ngay ñëw rek jàllale ko nii légèrement ci farine bi gis nga boo ko ci enrobé nii ba mu leer na ne euh, jàpp na ci poulet bi bu baax da ngay ñëw rek defaat ko nii ci saplure bi gis nga boo ko defee nii ci saplure bi mu leer na ne dugg na ko bu baax Baye Cheikh da ngay ñëw rek daal di koy teg nànk ci huile bi huile bi nag de préférence da ngay xaar mu xaw a tàng tuuti nga teg ko ci gannaaw nag dañu may xaar tuuti huile bi xaw a tàng mën naa leen expliqué légume sauté bi nga xamante ne ni moo koy accompagner parce que jamono yi ku ne xam na ni feebar yi ci réew mi léegi dafa bari moo tax dañuy fullaal euh, légumes yi nag euh, ñu ci euh, profito di ko defar di ko accompagner li nga xamante ne ni mooy suñuy plat lii nag lu simple la pomme de terre la ñu jël def tuuti huile revenir ko ci ba mu commen ba mu commencé am couleur gannaaw bi mu commencé am couleur nag Baye Cheikh ñu daggate concombre daal ko ci sànni jël poivron rouge ak jaune sànni ko ci bu fekkee am nga sa kër carotte wala nga am haricot vert wala mu nekk moment bi nga xamante ne ni euh, Baye Cheikh am na chou-fleur mën nga ko ci découper euh, sànni ko ci relever ko ak moom sauté ko mu jox la nag benn légume sauté nag boo xamante ne nii bu mucc ayib la euh, légumes yi nag bàyyi seex de de préférence dañ koy bañ di togg ba mu ñor parce que lu muy gën di ñor rek ngay perte vitamines yi nga xamante ne ni moo nekk ci légumes yi de préférence nag légumes yi da nga koy def mu croquant nga xamante ne di nga ci am wérgu yaram te di nga ci am goût bi nga xamante ne ni Baye Cheikh moom nga soxla jël nañu nag ci suñu épices yi nga xamante ne ni waa Sosa ñoo ñu ko andil def nañ ci tuuti sosa ak tuuti arôme bi nga xamante ne ni waa Soza Resto ñooñ ko andil mooy arôme épicé bi def nañ ko ci tuuti ak sauce uit pour gën a relever li nga xamante ne ni mooy goût bi bay Cheikh lii nag mooy nekk légumes yi nga xamante ne ni mooy accompagner suñu plat du jour tey déjà nag euh, suñu euh, brochette yi mu ngi commencer di jël forme mën naa defaraat beneen awa mu ngi noonu bàyyi Cheikh léegi nag li ñuy def rek mooy kon continuer defar li nga xamante ne ni mooy suñu brochette bàyyi nag muy ñorandi le temps que ngay ñëwaat ci man fekk ma defar ko euh, dressé benn assiette boo xamante ne ni moom la ñuy servir suñu invité incha allah mu doon xëdd wala mu dégustel ñu tey suñu plat du jour Baye Cheikh. mu ngoog donc loolu mooy plat du jour bi <laughs> et tu bien sauté tes légumes <laughs> merci Sophie. merci Baye. ñu xool fu téléspectateurs yi toll pour